aja zoom ngaay kooku mooy Modou Diam Terry Modou Diam Terry def na entrance fii ci Fatick ndeysaan a Fatick waaw waaw moom ñangar gu ñàkk dafa taal ñuy indi tey ndeysaan demee waaw waaw kooku mooy Modou Diam Terry Modou bu Pointe Sarène ndeysaan dugg si na fii ci Fatick dugg na fii ci Fatick waaw waaw le champion de Pointe-Sarène kooku moom moo di jam teeri ndeysaan waaw waaw mu na ko def na suuf sa ndeysaan waaw waaw